le 25 euh, mai 2024 bi moy journée porte ouverte GMR li nga xam moy euh, département hydraulique génie rural euh, machinisme énergie renouvelable mom moko organiser fi ci campus Kaolack Sing Sing léegi dañ ko organiser rek pour daal wax ci li nga xamantene moy li lii sooxeel suñu li nga xamantene bok na ci li nga xamantene moy lu am solo lo xamné suñu réew wala ci réew adina yépp nit ñi dañ koy bàyyi xel wala nit ñi dañ ci liggéey moy li nga xamantene mooy développement durable bu ñu koy naan développement bu yànj te yàgg lool parce que développement am na solo aussi mais développement bu yàggul amul solo te am na benn proverbe amérindien buy naan euh, développement euh, suuf si ñun hérité wuñu ko maanaam suuf si ñun euh, judduwuñu ñu jox ñu ko waaye dañ ko àbb suñuy doom ndax yàgg-yàgg suñuy doom lañ ko fi bàyyil donc aussi nekk na loo xamante ne dañ ko war a mën a préserver léegi daanaka fii ci activités yi li nga xamante ne mooy licence énergie renouvelable Euh, li nga xamante ne mooy euh, tàngoor gi ñuy constaté ci li nga xam ne mooy suñu euh, dëkk yi léegi tàngoor gu metti gi loolu noonu la ñuy naan réchauffement climatique léegi loolu lan moo ko waral mooy maanaam polition bu bëri bi nga xamante ne énergie fossile yi nit ñi di utiliser moo ko indi léegi tey jii nii ba tax na ñi nga xam ne ñoo nekk énergie bi ñoom dañuy jàng wala di saytu di def ay énergie di chercher ay façon d' yoo xamante ne ay énergie yu la yu ñuy naan énergie yu set yu énergie propre yoo xamante ne du def ay euh, effet ci environnement bi yoo xam ne amul ay effet négatif ci environnement bi ba nga xam ne tey ji nii ay éoliennes ak yu demee noonu ñoo xamante ne ñoom ñoo ngi koy proposé tey jii nii pour indi ay solution ci li nga xam ne mooy réchauffement climatique bi léegi boo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk hydraulique boo xoolee ndox dafa nekk loo xam ne dafa limité wu ci àddina te boo xoolee ci dëkk àddina yi ñu si gën a bëri yenn yenn jafe-jafe yu ñuy jànkonteel wala yenn tension yi am entre ñoom loolu maanaam ñàkk ndox bi wala ñu am benn ndox kese ñu war ko séddoo léegi bu ñu ko séddoo mooy indi yenn yi

ñi nga xam ne ñoo nekk licence euh, machinisme ñoom li ñu indi ay solution yi ñaañ ci li nga xamante ne mooy euh, machines yi ñu utiliser ci mbéy mi ndax suñu maam ya daanoon nañ gis ne ñoom ay fas ay mbaam ak ay charrue lañ doon utiliser te daanaka liggéey bu metti la woon ak tamit dañ ko doon liggéey ci ay waxtu yu bari ay simili yu baree bari te loolu dafa metti lool léegi ñoom dañuy indi seen i ay machine pour révolutionner pour li nga xam ne innover loolu noonu ba nga xamante ne di nga mën a béy ay surface yu rëy a rëy

bu ñu paree ñu traité ko ñu daal di ko stocké ci benn euh, château d'eau bu ñu ko stocké ci château d'eau bi château d'eau bi daal di ko euh, distribué ci kër yi te bu ñu ko distribué ci kër yi ñaari anam la koy distribué li nga xam ne dañuy naan euh, ay réseau réseau maillé ak réseau ramifié léegi def nañ de telle sort que ba wonee maanaam li nga xamante ne mooy distribution bi nu muy demee ci ci village yi ak aussi distribution bi ni muy demee ci ville yi ci zone urbaine bi en même temps aussi jëm nañ matérialiser li nga xamante ne mooy assainissement bi assainissement des eaux usées bi ndox yi nga xamante ne moom la ñu utiliser suñu biir kër yi na la ñuy def aussi ba traité waat ko ba mu setaat pour mën ko valoriser waat mën ko utiliser waat mën ko njëriñoowaat njëriñee ko ci li nga xam ne mooy mbéy mi en même temps li nga xam ne mooy déchets yu jógee ci kii bi ci eaux usées yooyu ñu mën ko utiliser aussi ci mbéy mi comme ñu doon ay euh, ay euh, ferment ferment yi nga xamante ne dañ koy mën a def ci suuf si pour mën mën a enrichir suuf si voilà léegi loolu aussi mon nekk li nga xamante lañ présenté fini euh, au niveau du campus léegi li nga xamante ne mooy euh, collaboration wala sensibilisation ci développement durable bi ñu ngi ci liggéey bu baax baax ndax booba def euh, tour au niveau des lycées de Kaolack dinañ continuer loolu aussi en même temps ñi nga xamante ne ñoo nekk professionnel ci domaine bi suñu maam wala suñu papa wala suñu tons yi nga xam ne ñooy yëngu ci mbéy mi dinañ leen jege bu baax a baax ñu gën a waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moo soxal euh, environnement bi ni ñu koy aaree parce que aussi développement am na solo lool waaye tamit développement bu yàgg moo gën ba développement bi nga xamante ne dañ ko am waaye du ñu du yàgg lool waaw léegi loolu vraiment li nga xam ne mooy objectif université bi la objectif université mooy daal di euh, tàggat ay ndaw yi nga xamante ne ñoom ci wàllu mbay mi la ñuy xel di yëngu buñu bu ñu paree maanaam mbéy mi tey jii nii newatul mbay boo xam ne dañoo war di béy rek mais dañoo war a béy boo xamante ne ci xam-xam lañ koy ci xam ci kaw xam-xam lañ koy sukkalikoo léegi ci kaw loolu noonu nag moo tax université bi ñu créé ko moo tax ñun aussi boo gisee lii nii daanaka suñu activité yëpp dafa gën a wu ci li nga xam ne mooy agriculture bi parce que université bi université boo xamante ne moom moom daal daanaka objectif am principal mooy lan mbéy mi la daanaka voilà moo tax bu baax ñu euh, euh, ñu activé bu baax baax ci li nga différents domaines yu ma cité sànq